candidat ndax amul kenn koo xam ne 2024 di nga yore réew mi bàyyi fi assemblée nationale bi ndax da koy tas amul kenn ku mu arrangé réew mi quotidien nee na opposition bi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal jamono ji seen i sens bëri wala ndax xaajalikoo gi nga xam ne moom la ñu xaajalikoo Khalifa Ababacar Sall jël na téléphone am woo na maître na ko maître bam na ko naam mu na ko Barthélémy Dias la bëgg samp def ko suñu mbër def ko suñu candidat ngir nag Barthélémy Dias nee na candidat la Ahmed Aïdara maire bu ville bu Guédiawaye moom tim nee na candidat la Lamine Thiam bu PDS nee la ñetti candidat journal bi nee na nag mooy tax ñi nga xam ne ñooy opposition bi mën la amuñu chance waaye nag li nga xam ne moom la askan wi di xaar ci député yu ab assemblée nationale la boo xam ne buy am rupture lay doon yéen kaay gi di enquête nee li am ba des te muy dëgg mooy assemblée nationale bii nga xamante Yewwi ak benn candidat bu benn bokk yaakaar muy ñeenti candidat yoo xam ne ñoo fas yéene jogante ngir nag présidence bu assemblée nationale yéen kay gi de la sa nee na doxalin wii nga xamante ni Yewwi Askan Wi ma ngi koy doxalee ak doxalin wii nga xam ne wàllu Sénégal ma ngi koy doxalee loole naka bu ñu leen waxee ne leen intercoalition bi tas na tasara maanaam bu mu leen bett yéen kay gi di bi nee na assemblée nationale bii nga xam ne tey ji la ñu ko installé maanaam la ñu ko taxawale ak vote secret bi nga xam ne moo ci ama loolee moo tax jamono ji jiixi jaaxa gu moo ci am li am ci yéen kay gi di leen nee na xeex bi jamono ji tar na lool ci intercoalition Yewwi Wallu waaye na kan mooy nekk assemblée nationale jamono ji opposition bi ñoo ngi jàmmarloo ak waa Benno Bokk Yaakaar waa Grand Place ñoom nee na ñu tey la bisub dëkk bi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar nan ñu député yi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar lépp loo xam ne ni ñoom jël nañu ko ndax ci week ngi woon ci diwaanu Mbour ma ne la yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar nee ñu sax seen téléphone yi dañu ko nangu woon yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Macky Sall lépp la fermé lépp la Macky Sall tëj Macky daf ko verrouillé jamono ji kenn mënu laa wax kan mooy candidat benn bokk yaakaar mën la bureau bi composition bi jamono ji kenn xamu ci lan ba tey ci biir journal bi di Walf Fadjri nee na en tout cas li am ba des sala mooy Aminata Touré Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye ñoo ngi leen di tudd ci benn bokk yaakaar yéene kaay gi nee na yeewu askan wi ak wàllu Sénégal ñoom nag xàllal nañ yoon Macky Sall ngir nag mu am ab candidat boo xam ne dina gagné assemblée nationale ci loo xam ne lu yomb lay doona ndax yeewu ak wàllu ñoom ànduñu dañoo tasaaroo yéene kaay gi nee na loole nag daf koy yombal benn bokk yaakaar yéene kaay gi di enquête nee na assemblée bu ñu ko installé yàggatul daal ay heure danañu xam kan mooy nekk premier ministre bu Sénégal journal bi di lii quotidien nee na en tout amba de sall ci biir bokk yaakaar Aminata Touré gars yi dañu ko contesté ci biir bokk yaakaar moom mi mi dañu ko contesté ngir nag lu jëm ci mu nekk candidat bu benn bokk yaakaar ci assemblée nationale yéene kaay gi di Dakar Times nee na ku wax li wax la sene sa député yi lan mooy benn député def naa proposition de loi ngir nag seen privilège ñu daal koy wàññi wala sax ñu leen di fay gestion ba gestion yéen i kayi gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci njiitu réew di président Macky Sall mi nga xam ne samedi ji ñu génn soloon na aw dàllam dem te diwaanu Touba ba mu jàkkaarloo ak sëriñ bi la mu wax nee ko gars yi liggéey ñu lay ŋàññe waaye nag li nga xam ne moom laay def amul kenn koo xam ne mën naa tere ma def ko ci dëkk a wala barsax gi ba léegi ma ngi mel ni tulleeg ma le ndax am na benn gaal boo xam ne lu toll ci cent onze personnes la yeboon ci waaxu jiféer yi ca mbuura fa la ñu ko tegee loxo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal gi kenn ku nekk fay na lu toll ci deux cent mille francs am na ñoo xam ne cinq cent mil la fay convoyeur bi ki nga xam ne moo tëgg mbir mi organiser ko jamono ji teg nañu ko loxo yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu askan wi yeewoo ci réew mi ba léegi ñoo ngi am ay jafe ci lu jëm ci seen wàllug dundoo maanaam dund gee metti journal bi nee na Aminata Assome Diatta mi ñu dénk wàllum commerce fan yi ñu génn génn nee na njëg yi léegi tey mu wàññee waaye nag waa réew mi bi ñu demee laaj askan wi askan wi nee ñu loole nga xamante ni ministre bi wax na ko ñoom gëmuñu ci lenn yéen kaay gii de la sa ñu xëy fekk fa docteur Abdourahmane Diouf nee na njëg yu yokk yi nga xam ne moo am ci réew mi jamono ji état bu Sénégal moo démissionné ci ay responsabilité ma maanaam moo seetaan askan wi yéen kaay gii de li quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu bu ñu leen waxee ne leen ceeb bi yokku na bu mu leen bett ndax taxe exportation yi jamono ji dañu ko yokk yéen kaay gii de la réveillé na am na enquête boo xam ne génn na waaye nag bi ñu ko xaymaa ci Sénégal téeméer boo